يا ابن الذي من عمري قد بقيا في الزمر والغلمة زابيا الذي من عمري قد بقيا في الزمر والغلمة زابيا يا ابن الذي من عمري قد بقيا في الزمر والغلمة زابيا bës bi di am mbégte bu baax a baax ak kontante saa su nekk bu waxtu bi jotee ñuy feggoo ak yéen eh, ngir jukkil leen li nga xamante ne si ëttu yéenekaay yi dañu koy daal di xëyee saa su nekk ci seen i xët yu njëkk tey di yemoo ak alxames eh, ak juróom-ñaar ci weeru octobre atum 2024 eh, dañuy daal di ànd ak yéen doore ko li gën a fës te ëttu yéenekaay yu bari xëy fësal ko ni ki tey ci seen xët yu njëkk bokk na ci Sud Vox Populi L'As Tribune ak Le Quotidien ñoom ñëpp dañu daal di xëy rek di addu ak FMI mi nga xamante ni ay weer a ngi ni mu nekk ci réewum Sénégal ngir di càmbar économie ak koom-koom gi nga xamante ni moom moo daa nekk ci réew mi bi la ëttu yéen kay di Sud Quotidien la Ousmane Sonko waxoon ko i looxoor euh, waxoon FMI nee lu gën a ci boppam tax moom la ñu daal di fekk ndax bu ñu xoolee rek euh, jëm ci rapport bi nga xamante ni ICF euh, daf ko daal di defoon jëm ci minimel euh, jëm ci wàllum rek koom-koom ak dette yi nga xamante ni Sénégal jamono ji rek ci guuta la daal di nekk maanaam guddi gu bët setagul bi la ëpp yéene kaay di Sud Quotidien daal di ñëwaat rek di ko dëggal ba tax na mu fesal ko ni ki tey ci xëtam bu njëkk di exiger nag moom FMI ci Sénégal ngir mu daal di taxaw daar daar ngir saafara jafe-jafe yi nga xamante ni moom lay dund waxtu bi tembe bi moom moo daal di addu nu ni mel fekk euh, moom ni moom moo di Edouard Gamiel jiite FMI fii ci euh, di rek rafetlu bu am solo ak rapport bi nga xamante ni IGF ko daal di génne woon euh, jëm rek ci li nga xamante ni moom moo di déficit budgétaire ak dette bi nga xamante ni réewum Sénégal jamono ji rek daf ci daal di nekk di ay guddi yu bët setagul moom ëttu yéenekaay bi ne FMI kay dafa daal di rek confirmer li nga xamante Ilimani jëwriñ Ousmane Sonko daf ko fi daal di waxoon ci ay jafe-jafe ak rek lu jëm rek ci difficulté budgétaire bi ñuy àddu ko ne Ousmane Sonko nee na egg na rek ba rek diis jëm kaw moom ëttu yéenekaay bi ne loolee la effet bi ñëwaat dëggal weddi kaddu yi nga xamante ni président Macky Sall rek daf ko fi daal di waxoon bi li ëttu yéenekaay naan ma ko gëmoon kaddu yi Macky Sall boobee rek da ngaa gëm lu la neex waaye ñëpp xam na ni li mu doon wax teguwul loolee tamit daal di ni amut moom le témoin moom moo daal di àddoo lu ni mel ba tax na mu dikkaat ci rek guuta gi Sénégal Sénégal nekk te FMI jàpp ni IGF li mu daal di wax rek euh, jëm ci koom-koomum réew mi ak bor yi ñu daal di amee loolu fu ngeen ko takk rek weesu na ko ba tax na muy sàkku Sénégal euh, mu taxaw daar daar ngir saafara mbir mu ni mel le témoin moom moo daal di àddoo lu ni mel waaye tamit euh, la mu ci daal di yokk rek di déficit budgétaire ak dette publique bi nga xamante ni jamono ji dafa jàpp ni rek ne faaw rek ñu def ci suñu kemt lay rek ngir indi ci ay saafara na mu gën a gaawee le témoin moo àddoo moom it ca loolee la daal di xëy di ca daal di addu ba tax na mu jàpp ni jamono ji FMI dafa daal di jàkkaarloo ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ngir ci ñoom euh, ñu taxaw daar euh, ba li nga xamante ni moom moo di rek économie bu Sénégal bi la ëttu yéenekaay moom moo ko daal di fësal waaye la mu ci daal di waxaat tamit euh, beneen ëttu yéenekaay di li quotidien moom dafa mel ni leneen la daal di gis moom moo di FMI confirmé Macky Sall ëttu yéenekaay bi ne déet euh, bul jaawale yëf yi du Macky Sall de Ousmane Sonko ci boppam la daal dëkk rek di dëggal ndax lu jëm ci PIB bi ñu doon wax rek ne euh, mi ngi egg ci 10 pour cent moom ëttu yéenekaay bi yi doon wax euh, mbir ma dafa mel ni la ëttu yéenekaay lu la dëgg mënul may rek maanaam wax lu dul dëgg du la ko xañ moom ëttu yéenekaay bi ne la wax ni jafe-jafe yooyu la ñu fekk ci réew mi moom la FMI dëggalaat fexe ba ci rapport IGF euh, bi nga xamante ni euh, waxtu bi tembe rek moom la ñu daal di teg euh, bile ëtt yéenekaay yi di li quotidien moom moo daal di rek fësal lu ni mel ginnaaw li quotidien ñu jàll ci beneen ëtt yéenekaay yi Tribune moom dafa daal di xëy di àddu mu dikkaat ni bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ne Edouard Gamiel daf ko daal di rek yëkkati te jiite FMI fii ci réewum Sénégal moom ëtt yéenekaay bii di rek Tribune quotidien jàpp ni ci guuta la ñu daal di nekk jamono ji bu ñu xam nag kañ lay jeex ak rek yenn xamante ni mën na ko daal di indil Sénégal bi la ëttu yéenekaay eh, ci déficit eh, budgétaire bi nga xamante ni nee nañ jamono ji mi ngi rek ci 7 virgule 5 PIB moom ëttu yéenekaay bi di àddu ni eh, boo ñu daal di xaar rek ne dund gu yokk courant bu yokk ab ndox loolee lépp moom ëttu yéenekaay bi jàpp ne jafe-jafe yu ñuy koy dund jamono ji rek lu ni mel rek la daal di wund ne foofee rek la ñu jëm moom ëttu yéenekaay bi ne feeki fan lu xew ci réew mi baye bu mu bett kenn ndax gars yi rek def nañ li nga xamante ni moom moo di seen quotidien ne jamono ji Sénégal ak yaramu màggat ñoo daal di yem maanaam fépp rek moom mooy metti moom ëttu yéenekaay bi ne est-ce que passé wuñu foofu sax dafa mel ni rek cin luy baax lu nekk ci kaw tàll benn ruq boo xamante ni dafi daal di sedd moom ëttu yéenekaay bi dikkaat ci rek euh, lu jëm ci front social en dévolution ba tax na mu jàppaat rek fait de l'état de la grâce pour Diomaye Sonko euh, lañ leen mayoon rek euh, di état de grâce dafa mel ni rek gars yi tàmbali nañ di ko nangu benn benn fi mu toll nii rek la ñu daal di bëgg moom moo di ñu indi ay joyante jëm ci wàllum wér-gi-yaram njàng mi ak njàngale mi ak lu jëm tamit ci fonction publique euh, anam gi nga xamante ni euh, noonu la ñuy daal di defee moom ëttu yéenekaay bi ne loolee jamono ji rek demande nationale la maanaam gars yi war nañ ci daal di euh, daar daar ñu jàll ci leneen loo xamante ni jot na rek ñu taxaw ci daar daar di yuuxu wàllu gi nga xamante ni waa Fuuta ak Tamba ñi ngi koy daal di yëkkati rek jëm rek ci fleuve bi nga xamante ni dafa daal di déborder ba fekk si askan ba moom ëttu yéenekaay ni débordement kay di fleuve Sénégal la ñu daal di nammeku Eh, jëm fële nga xamante ni moom moo di Bakel eh, Tamba ba tax na jamono ji yëpp bu ñu sukkandikoo ci maire rek eh, Ball ak ki nga xamante ni moom moo di maire Diawara jamono ji rek ñi ngi sàkku ci état bu Sénégal ngir rek ñu indi fa rek ay saafara jëm ci jafe-jafe yi nga xamante ni waxtu bi tembe askan ba fa daal di dëkkee moom la ñuy daal di dund moom ëttu yéenekaay bi neen bu ñu xoolee lu toll rek wala lu ëpp rek ci cinq mille personnes yoo xamante ni jamono ji dañoo daal di génn seen i kër ñu ci bari sax ci l'école yi la ñu daal di dëkk dëkk ba tax na ëttu bi di ñu àddu ni loole moom moo waral rek tout tànk yi ñu ci bari mënaguñoo fexe rek ba tàmbali seen i cours foofee nga xamante ni euh, moom moo di rek ca Bakel ak Tamba ba tax na ëttu yéenekaay bi di àddu ko ni loolee it moom Ilimani Diourine Ousmane Sonko ni ki démb rek ci ab conférence de presse wala waxtaan boo xamante ni euh, doon na ko def ak ay militam démb ci guddi fala la daal di xam ne rek ne président de la république euh, Bassirou Diomaye jaxaar fay dina génne lu toll rek ci juróom-ñetti milliards ngir dimbalee ko askan bi nga xamante ni rek ñoom ñoo daal di nekk rek foofee xamante ni moom moo di Bakel bi la ëttu yéenekaay yi di addu ba dikkaat fa ci las quotidien mu dikkaat ci inondation yi ñu daal di nemmeeku foofee rek ca Matam ak Tambacounda ba ci Bakel moom ëttu yéenekaay bi ne euh, tax na rek gouvernement bu Sénégal ci kaddu ko président Bassirou Diomaye Diakhar fay moo ko xamle moom moo di rek Elimani jëwriñ Ousmane Sonko nee nañ ne dinañ daal di yëkkati rek lu toll ci juróom-ñetti milliards ngir dimbalee ko euh, lu jëm ci wàllum faju ak rek yére yu ñu daal di sol waaye tamit rek dund ni des na la ko daal jàppale euh, donte ni sax nee na yenn ci ay kilifa dem nañ fa waaye des na daal di xaarandi euh, président de la république euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye niki suba rek ci ajjuma ji ak samedi ji mu dem foofee nga xamante ni moom moo di rek Matam Bakel ak Tambacounda ngir gëstu mbir ma jafe yi nga xamante ni jamono ji rek ñoo ko di dund moom Ilimani jëriñu Ousmane Sonko nii rek ñuy wax ni barrière bi dafa daal di amul nee na bu fa amutoon yëf yi dana daal di rek gën a jéggi dayoo waaye rek ndox ma dafa mel ni dafa daal di rek ëpp rek doole Euh, barrage bi nga xamante ni moom moo fa daal di nekk bi la ëtt yéenekaay yi di xam ne rek ne état bi des na ci rek daal di jël ay saafara na mu gën a gaawee moom ëtt yéenekaay bi ñoom waa Bakel Tamba ak fi nga xamante ni moom moo di Matam soxla nañ ko daar daar ndax jamono ji nee nañ rek sori nañ waaye ci réewum Sénégal lañ bokk te dañoo jàpp ni rek euh, jéego ak tànk yi nga xamante ni état bu Sénégal mi ngi koy seq jëm ci ñoom loolee dafa daal di yeex rek lool ba tax na ëtt yéenekaay bi euh, xëy fësal ko les échos dikkaat ci lu nu mel ne ci boobule jamono moom bu fekkee fekkente ni président de la république tal na leen Elimane jëwriñu Ousmane Sonko moom talu leen ndax niki démb la ñu daal di gis rek ci euh, mu génn di def ab live nee na nag bi rek njiit gi nga xamante ni moom bi di Pastef ci la doon waxee waaye bu kenn rek euh, jaawale ka ni dafa génn di wax ci ko Elimane ma ngay xam ne rek ne levée de fonds bu rëy bi nga xamante ni ma ngi ko daal yëgle niki démb rek ci bi muy jàkkaarloo ak ay militant ak i sympathisant euh, moom ëttu yéenekaay bi ma nga daal xam ne rek ne Ousmane Sonko dafa daal di lancé rek vaste cagnotte euh, jëm rek euh, ci fonds yoo xamante bëgg nañu ko daal di dajale ngir campagne ko nee na lu mag euh, doon dundee ba sax ci ab sikkim war na ko daal di continuer moom Ousmane Sonko ne la parti bi doon doxee daaw ak barki démb ci loolee la ñu daal di rek bëgg a wëyal maanaam rek li ñuy dekk campagne militants yi ci boppam ñoom ñoo koy dajaleel seen bopp ndax Ousmane Sonko nee na fas ñu yëkkati benn dërëm boo xamante ni ci keesu état bi lay jógee ngir rek ñu koy financer seen i campagne ba tax na moom ëttu yéene yéenekaay bi di xam ne rek ni euh, ministres yi ak daas yi wala rek CFO yi nga xamante ni ñoom ñoo daal di nekk ci parti bi nee na kenn ku ci nekk na daal di rek joxe li nga xamante ni moom moo di benn million moom ëttu yéenekaay nee na bu fekkente ni maire yi euh, ñoom dafa sàkku ci ñoom rek ñu daal di joxe kenn ku nekk rek ñaar fukki junni waaye bépp rek euh, sën wala sympathisant boo xamante ni da bokk ci parti bi di Pastef it sàkku nañ ci yow nga joxe rek ñett téeméeri di levée de fonds bi nga xamante ni Ousmane Sonko moom rek la daal di yëgle niki démb ne des na ko rek soobu ngir ñu rek campagne ci ba tey Walf wala Vox Populi xayaat di ci daal di àddu mu jàpp ni rek le euh, Ousmane Sonko dafa daal daal di bëgg rek ko collecté li nga xamante ni moom moo di fond boo xamante ni dina ko mën a dimbali euh, ngir mu daal di ci campagne bi la ëpp yéenekaay yi naan Ousmane kay daal di tàmbale ay campagne te campagne ci boppam sax euh, moom moo daal di tàmbaleegut ba tax na ëpp yéenekaay bi jàpp ni la ñu ci rek daal di mën a dajale di ministre yi nga xamante ni sàkku na ci ñoom ñu joxe benn million ak li nga ni moom moo di kenn ku nekk ñaar fukki junni waaye tamit militant ak sympathisant yi nga xamante ni eh, dañuy safoo rek Pastef ñooñu it ma ngay daal sàkku ci ñoom ngir rek ñu daal dajale eh, loo xamante ne si rek toll ci ñatt téeméeri dërëm eh, ngir jàpp rek ci combat bi bi la ëttu yéenekaay yi moom moo daal di rek fësal lu ñu mel ba tax na rek muy àddu ko ni jëm ci lu ni mel ak jafe yi nga xamante ni moom la jamono ji état bi di dund wala réewum Sénégal di ko dund moom Ousmane Sonko di wax dajale ay koppar ba rek yëf yi ko mën a tuddee d'argent ba tax na ëttu yéenekaay bi di addu ko ne waa kër gi di caat ak kilifa way wi nga xamante ni euh, doon nañ ko woy ni mosu fee jokk ak jafe-jafe ak yi nga xamante ni moom la askan bi di dund jamono ji est-ce que jotutu ñu génnewaat way woowu maanaam tàngal ceeb bi teg ci kaw taabal bi ndax dafa mel ni askan bi ñu ngi koy bëgg soxla ci loolu moom Bougane Gueye Dany la mu waxoon ne Ousmane ko euh, bu génnee suba dinaa gontu génn baa bu gontee su ma xëyee dinaa génn noonu la daal di def euh, ginnaaw rek ab lekk jàkkaarloo wala rek lu jëm rek ci live bu Ousmane Sonko def moom Bougane ma nga ci daal di addu nee li muy wax ak koppar yi mi dajale yaakaar naa réew mi jamono ji toll na ci besoin yoo xamante ni wares na ci daal di mën a taxaw lu ci mel ni rek la xew ca Matam euh, ak Tamba ñu dimbali askan bi nee na bu dajalee koppar yi mi dajale lu ci parti bi su paree nu ko yóbbul ñooñu euh, ndax soxla nañ ko waaye tamit euh, sinistre ya nekk fële ca Touba Mbacké ba Serigne Mountakha génne lu toll rek ci 200 million joxe ko fa moom Bougane Gueye Dany nee na li Ousmane Sonko di sàkku ci waa partem ñu dajale ko loolee it bu ñu ko dajalee nañu ko yóbbu Touba ak Kaolack ndax ña fa nekk soxla nañ ko jamono ji Euh, point acti xëy di ci daal di rek euh, àdduwaat ba tax na mu jàpp ni Sonko dafa daal di rek euh, tàmbali ak campagne am afaa rek campagne bi di tàmbalee waaye lu jëm jëmit ci collecte de fonds yi nga xamante ni mi ngi koy dajalee moom Sonko nee na méga meeting bu des na ko daal di amal niki samedi ji ci arena moom ëttu yéenekaay bi dikkaat ci lu ni mel ba tax na rek muy àddu ko ni Ousmane Sonko soobu na ci li nga xamante ni moom moo di ci ay campagne am point acti dëggal ko sax ba ni fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre dina daal di organiser méga meeting bu rëy fële ci Dakar Arena euh, moom Ousmane Sonko di ci woo képp koo xamante si rek dafa daal bokk ci Pastef Bougane Gueye ba tey rek ma ngay def contre attaque euh, jëm ci Ousmane Sonko nee na Sonko waxoon ne pays en ruine maanaam kees yoo xamante euh, fekkuñu ci dara bu dee loolu dëgg la kon fan la jëlee lu toll ci juróom-ñetti milliards yi nga xamante ni nee nañ nañ ko daal yóbbu fële ca Bakel pour dimbalee ko askan bi du kaddu kaddu yu Ousmane Sonko la waaye mu àddu ko euh, foofa it euh, lu ñu daal di rek war a bàyyi xel askan ba fa daal di nekk ndax lu toll ci 90 pour cent jamono ji ndox ma da leen daal di sonal waaye moom Ilimani jëwriñu Ousmane Sonko des na ko fi xaar wala rek président de la République euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na ci àjjuma ji ak samedi bi dina dem rek massawu ñi nga xamante ni ñoom ñoo daal di rek laru ci fleuve boobu nga xamante ni dafa déborder fële ca Matam waaye it yóbbu lu tollu rek Euh, ci juróom-ñetti milliards yoo xamante ni des na leen ko daal di jàppale grand place noonu la daal di xëyee ak Bougane nee na li ma leen doon wax du ngeen ko gëm waaye saa su nekk yéen a ngi ci teg seeni i bët ndax ñu cuune ñu tële ay kati juuti ci boppam la ñu daal di jox euh, réew mi mu mel ni jamono ji rek euh, ci làmbaatoo ak rek talax talax yi ci lañ daal di nekk moom ëttu yéene kaay bi fësal lu ñu mel keneen ku ci daal di addu public quotidien moom lu jëm ci cotisation yi nga xamante ni ñoo ngi koy daal di laajte foofee nga xamante ni moom moo di ci moo di dañu ñi cotiser jox leen ngir ñu gundaandaat wala rek euh, rongo ñi baadoola mooy siim ba tey cere buur bi leen ëttu yéenekaay yi xëy fësal ko en tout cas la Ousmane Sonko euh, di wootee jamono ji ak réew mi fi mu daal di toll dafa mel ni rek jugaguñ ci guuta gi nga xamante ni euh, fa la ñuy nekk moom ëttu yéenekaay bi moom moo ko daal di fësal peuple quotidien ni ana lu fi jar rek tiit ba tax na Ousmane Sonko di génn xaaji guddi di wax ak askan bi jëm rek ci ay cotisation yoo xamante ni daf koy sàkku ngir mën ci amal ay campagne moom ëttu yéenekaay bi ne ci boobu le jamono ñi ngi wax rek ne eh, président de la république eh, Bassirou wala rek Ousmane ki nga xamante ni moom moo di Macky Sall ba woon nekkoon ci réewum Sénégal eh, dina rek daal di dugg ci réew mi pour amal ay campagne am moom ëttu yéene kay ne en tout cas lu ci mën a am ba des ñoom daal noppi nañ pour ñëw ñeneen ñu daal di nopp moom moo di waa Pastef ñoom li leen jaaxal mooy ñenn ci ay nit yoo xamante ni jamono ji rek démb ak barki démb dañu doon rek xas ak sànni ay xeer parti bi di Pastef tey nag mu mel ni rek dañu daal di rek lëngaloo ànd ànd ak waa PASTEF ndax seen i intérêt bopp bi la ëttu yéenekaay jàpp ni rek stratégie la wala intérêt rek moom moo leen ci daal di yóbbu ba tax na moom ëttu yéenekaay bi jàpp ne euh, ñoo nekk seen i ñi nga xamante ni ñoom ñoo daal di nekk fële nga xamante ni rek euh, moom moo di rek la ñu jàpp ni fa seen ñu ànd ak ay transhumants di def li nga xamante ni moom moo di campagne nee nañ loolee war gaynde moom moo leen ko daal di gënal seen fukki xel ak juróom-ñaar mënut nangu ay nit démb ak barki démb euh, leen xas tey rek ñu féetee ci làngu ko wala rek bi ñu fas euh, des na daal di addu rek euh, ci conseil des ministres bi nga xamante ni président de la république euh, daf koy faral di def àllarba bu jot moom ëttu yéenekaay bi ne bokk na ci rek li nga xamante ni moom moo di diffictif yam fa daal di rek directif yam fa daal di joxe moom moo di rek ñu fexe ndaka la ji daal di taxaw rek ci emploi des jeunes waaye tamit lu jëm rek ci mbay mi ak napp gi noonu rek la daal di àddoo ci train de vie de état bi nga xamante ni nee na faw rek ñu copp ci ak lëf euh, ndax a gën a oyof ci ñoom waaye ñuy daal di def rek ba vision Sénégal 2050 dugg ci bopp xale yi euh, bi la ëpp yéenekaay yi moom moo ko daal di fësal libération ànd rek wala mu àddu jëm rek euh, ci présumé scandale financier rek bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fële ca Dakar dem dikk ba tey moom ëttu yéenekaay bi nee na coow li ma ngay daal di woy ndax ginnaaw lu toll rek ci milliards milliards yi ñu fa doon wax rek eh, bi la ëttu yéenekaay yi nee na enquête bi ma ngay daal di wëy ñu daal di koy ndar keppee ak lu doy waar li nekk ci bi la ëttu eh, di benn waay yi moom moo rek daal di détourné lu toll ci juróomi eh, million dem yóbbu ko ci naar ba di jouer pari foot mu mel ni dafa daal di rek mujjee perte lépp di juróomi million yi nga xamante ni moom lafa fa daal di yóbbu woon bi la ëttu yéenekaay yi di libération moom moo daal di addoo nu ni mel dafay mel ni loolu moo daal di gën a fës ci li ëttu yéenekaay yi xëyee ni ki tey jii rek eh, ci alxames yi yemoo fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre atum 2024 eh, way leen di ànd ak suñu programme ci kanam tuuti di ngeen am seen émission actualité en débat eh, cant ak ngërëm da di ñeel di ñaanal kenn dalu jàmm si يا ابن الذي من أمري قد بقي في الزمر والظلمة زاميا